teraanga doomu aadama liggéey dong moo ko mën na joxe te lu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey jamono liggéey la nekk liggéey war na góor wanna be again for what I take you take you over they know why nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xaasaaroo boobu la bés te beneen di ñëw lu ñu xamuloo lu mu àndal mani tàkku alhamdulillah mi poɗɗima ɗum hitande fof eɗen mbaɗa ɗum ɗo wayde eh, ɗo mbaɗaten ɗum kuyngel mbaɗanɗen nder kuyngel nattuɗen wadde kuyngel mbaɗɗen hoɗɗen ga touba guy eh, joom wora touba guy o dalani men ɗo babacar guy waɗa men ɗo hokki men ɗo guesa muɗo yaajo wimen gonɗo hiɗa gonen ɗo lebbi jeegom lebbi jiiɗi mbaɗen campagne men ɗo haaji gasa jamma salam kooten eh, en gadda cooden gay gila pooƴi mbaɗen ɗum neyɗe haɗi gona gaye mawɗi jeeyen dañen heen alhamdulillahi boone fiis emin jinno minen aynaaɓe taw rippas on waawi webde seeɗa omo wayni sadde ɗum haɗata ma dañde heen ɗo mo woni ɗo taw laamu waɗa ɗum no rippas o usine mbatta rippas o ustama seeɗa en tant que éleveur hannde kam bon mbeɗa waɗi contant sabu so huuɗi jiiɗa mbeɗa jolniɗa en coonnude ko ujunere te comme éleveur to coonnude ujunere eh, opération tabarta mbi ballat noon ponnamen wadde tawa ka sohli ripas jata ko éleveur cooda ripas ujunere ɗum min jinno walleede ɗum ah, ko amen renni tawi kam danade moon fof somi sohla rek mune yewde se ripas mu ñool jinde ndi si sohle kar kar ñownendi on ndilla amna en jaawi boon ken munul jaawi haalisi ah, mo gennul ma tan kawmo haalis mo gennuo kawmo mande gissuma client wadde loolu moo gën sonnal waa sénégal do mona do nga yare fi se kar bo pare montre mënu ko jaay c'est ripaas bi seer na te mënu koo jaay yeneen réew bi ñëw bi jaay fer bi yomb yóbbu xaalis bi yóbbu seen intérêt dem loolu moo rëy sa sa buy noonu suñu sanga ne dañu opération si sénégalais moo ko mun ne ko def sa kër ripaas bi yomb na ripaas bi mooy élément détail bi mooy sa problème te borom tool bi day lakk àll bi àll bi amatul ñax monsieur Kam la war dëgg la euh, dëkk bi moo gën a def sécurité sa moom ba boppam di son sili dugg si gaay bi xool mbela bandi am na wala bandi am kon mm-hmm. dëgg yàlla maire bi xam jàpp naa ma ne li ñu sàmm yi xam ne ak éleveurs yi may na ma jàmm mm-hmm. lo duggar ɓurde fof welde duggar misir ɓuuri welde mm-hmm. jaltuɗa fof duggar goɗɗe ɗe a yaltan lamde ɗa carte dañne tawa aɗa arno duggare korɗa yen nahde duggare jaltan jaha fi jamma assalamu borom dekko bi defa dalama fide jam assalamu aleykum salam wa tubagoy babakar babakar bi wa musumama fi hoore lem fii depuis 2012 laa commencé fi. 2012 yaa ngi fi. ay nag élevage rek laa def man. ay xar la. xar la béy la ak élevage rek laa def man. man dëkk ma fi woon sax dëkk li château. jafe-jafe yi ñuy am gis nga àll bi kay lu muy la lakk ne ko jeex ta mënu ko lekkal te repas bi seer na douze mille à treize mille. ministre élevage na ministre élevage bi bees bi ñëw fi dëgg naa lu mu wax dama war a ko wax li mu ne noo xoolal élément détail bi ne wàññi ko baax a baax. xoolal sàmm yi lu muy lu muy sonni soo demee tey Fuuta nag benn dundul foofu yëpp muy fii xam na yow de àll bi sa làkk kar day ñëwaate dem lu Mauritanie jéggeer kar sam-sam liggéey mu ngi dox carrément mu ngi ko defal li mu war ko liggéey mu ngi ko defal dëgg la te man sa man na tànk samb éleveur la mangaan yi dëgg la may sam-sam may leen fii mu ngi si jàmm salaam te dina repasse yi ñëwee da ngeen jox si si ñax ko élevage bi ñëwee da nga ñax ko seen nag reportage yu mel ni mhm. euh, tey dafa yàlla dafa def ma ñëw fii si Ndiaye Sow ñu mhm. daje fii Ndiaye Sow nag de euh, yàgg na fii di sàmm fii mhm. moom opérateur économique la la sàmm la léegi lépp la boole. Mhm. léegi wind bi. Mhm. presque sunu wind yëpp nii la mel waaye moom. def ci boole tuuti euh, moderne. moderne waaw parce que moom def stabilisation lay def. stabilisation parce que gis nga nag yëpp dafa leen yeew. waaw muy indi ñax di indi ngooñ di indi ripaas di di di compte. dañuy wotti ci àll bi mais am na nag yoo xam ne du du yi ngay gis nii. ñii mhm. du duñu wotti. ak xar yi ngay gis nii xar yu jigéen yi. waay du ñu wotti mais am na. ay nag yu wëtti hmm. yooyu ñëw gu ñu dana ñëw si kanam hmm. c'est genre sàmm eh, élevage bi moom moom la ñu war a euh, wone pour sàmm yi di ci copier hmm. parce que affaire bi eh, copier rek mais yii moom yii moom yu mu yeew nii moom presque moderne moderne la parce que day jël nag yu loof mu del ñu leen compte di leen compte di leen compte ba ñu mu mu jaay mhm. am na ñoo xam ne dañu am seen doom yi gis nga doom yaa ngi nii mhm. doom yi ñu nag namp yi nag yi nag yi nampal ñoom dañuy waxti ñëwaguñ gis nga gool yi ñu ngi génn di dem seen yaay yi ñu ngi noonu di ñëw mhm. euh, sàmm bu am fayda lay def fi buñ sañoon presque euh, sàmm yu bëri euh, loolu lay ñu def parce que moom qualité bi la la gën a kii moom bëggul jur bu bare moom qualité bi la la lay gën a lay léegi c'est ministre bi bu mu ñëwee Missirah man fekk waaye man euh, gis naa élément bi ci ci ci rajo yi ak si télé yi waaw moom nu mu moom mu def nii loolu la ñuy def heure boo xam ni sàmm yi ñu ngi dajale seen jur yi di dem si loomu yi di jaay ñii di dugal ci oto yi di yóbbu foofu gouvernement bi dafa war a ñëw mu mu gis ko mu gis mouvement jur bi bu fekkee léegi moom bëgg na jël décision pour bañ a jëli yeneen xar moom dina xam loolu ndax sàmm yi mun nañ ko wala mënuñ ko loolu ci loolu parce que da nga war dem ba ci terrain bi nga gis mouvement xar yi nu ñuy demee eh, mais moom ministre bi am na lu ci gis xar yi bare na xar yi moom xam nga jafe-jafe bi ci jaaykat yi la mais ñi jënd moom daf leen di arranger eh, parce que xar yi bu bare rek du cher noonu dootul cher noonu. aliment bétail bi eh, dafa am ay façon bii ñëw nii léegi pour euh, borom euh, xar yi ñoo ko moom du pour éleveur du pour baykat du pour borom fas du pour borom béy bii pour borom xar yu nga xam ni opération tabaski la. non kooku pour xar yi rek waaw pour xar rek non non non non bii bi ngay gis nii mu indi léegi boobu opération tabaski la. kooku ministre bi moo ko joxe ñu ngi ko jëlee nag ci ci kii bi ci compte euh, ripaas bi nekkoon fii bis ñoom Sàmm Saalum ma yoroon ci seen compte bi lu ñu jël xaalis benn jëndi ko waaye gouvernement bi dafa subventionné léegi saak bi 5200 lay jar waaw léegi nag euh, euh, ñi yor xar yi di jaay rek coggal yi ñoom ñoo ko moom parce que bariwul parce que Koupantoum moom. Euh, dem naa foofu ba gis ñu ngi koy dajale foofu waaye ñooñu vingt cinq tonnes la ñoom pour département Koupentoum yëpp dix communes vingt cinq tonnes xam nga loolu bariwul Koungheul nag xaw ma nu mu am waaye xam naa du sore foofu du buñ sañoon ñu yokk ko te bu ñu sañoon euh, ñu départ ko ci mois de mai di joxe ripaas di parce que boo demee léegi boo demee léegi booru waalo Jolof waalo foofu amatul benn jur ñëpp dem nañu yëpp ñu ngi ñii ñu ngi Ferlo ñii ñu ngi Saalum fii ñii ñu ngi booru Tambacounda xam nga loolu nag gouvernement bi def ci waroon jël ay ay ay information yu wóor mu jaral ko mu def euh, mu def hélicoptère mu dem ci àll bi di di filmer di def ay cartographie di xool fi gars yi déserté parce que foofu boo fa demee billahi boo ji si benn jur yëpp dem na yëpp dem na ñu ngi boor yii loolu nag léegi bu dajee ak gars yi di di di défricher seen tool yi di ruuj di lakk ñax bi non xam nga loolu problème la non sàmm yi du du du amuñu habitude di kaas di sol ay ay sagar yu xonk ay affaire yooyu ñoom amuñu affaire yooyu xamuñu ko mais ñoom ñu ngi ay si ay problème yu rëy amuñu lu ñu dundee te ñoom euh, ripaas bi dafa cher te léegi affaire bi jarul jur bi jarul ñëpp ñu ngi concentré wu ci ci xaaf yi xar bu jigéen amul xaalis bëy amul xaalis ñëpp ñu ngi seen def seen xel ci xar yu góor yi jaay ni tabaski te xa tabaski bi xaalis bi ñëwagul il faut mu ñu jaay ba pare ñu doog a am lu ñu dundee mais fi mu nekk ni léegi ñoom ñu ngi son loolu bu bu sañoon gouvernement bi def ci attention di ñu toppatoo di ñëw fii di ñu nemmeeku di ñu indil ay même même même bu ñu amoon ay ay ay aliments pour nit ñi lu ñuy lekk loolu bañu bañuñu ko de parce que tey sàmm yi sonn nañu de ñoom duñu kaas dañuy dem ci àll bi rek nekk foofu di deewoo amagul dara ñoom taw bi rek la ñu yaakaar. léegi ñuy ñuy épargner tuuti affaire bi ñu bàyyi ci sàmm bi tuuti léegi am na sàmm yoo am na borom tool yoo xam ne am nañu ay nag ñoom waroon nañ ci dugg. ji dugg ci biir tool yi di di di di def ay sensibilisation bu fekke ñëw nañ ci benn tool boo xam ni bii nag yi mun nañ ci dundee même une semaine ñu ñëw ñaan borom tool bi ñu nekk may ñu fi ay une semaine ñu lekkal fi wala ñu indi sareet yi góob ñax bi yóbbu comme nii gis nga ñax bi mu ngi nii léegi sareet yi dañu dem rek di indi fii di teg waaw di di teg pour nga jëli ñax bi il faut nga dem ba ay boor gannaaw ndun yooyu ngay dem pour am ñax foofu walla foofu am na ay ay forêt yu ndaw yu ngi foofu làkku non njaay modèle la xale bu ndaw la boo xam ni mu ngi boole sàmm ak jula yëpp daf koy boole eh, léegi moom indiwul fi famille am sax ay jabaram ak yooyu indi moom kenn ak ay surgam rek mu ñëw fii borom dëkk bi dalal ko fi mu nekk fii di sàmm fi waaye ni ma jis mu sàmmee noonu sàmm boobu moo gënoon ño noppal ñëpp ñun ñii ñëpp nga xam ni dañu ñëw fii indi ay saret ay jigéen ay xale yoo xam ne waroon nañ jàng jàngul ñooñu façon sàmm bi la ñu war a eh, seet ñu def ko moo gën a rentable parce que sunu doom yi danañ mun des foofu sunu jabar yi des foofu ñu wut ay xale yu góor di leen fay parce que moom entreprise la def fii de parce que de dafa dafa engagé ay booy mu leen di fay voilà loolu la. wala ñii dañ leen war a encouragé dañ leen war a euh, d' abord ñu localiser leen ñu xam fu ñu nekk ci Sénégal ba ñu xàmmee leen ñu dem fekk leen fu ñu nekk comme ne reportage bi ngay def nii ñu dem ba foofu. parce que moom am na ñu mel noonu ci moom mais bariwul nag parce que Ndiaye soo nu mu melee si dépense bi am na ñu bare ñemewuñ loolu parce que moom lu mu dee ñeme def ci jur nii am na sàmm yoo bare ñemewuñ ko. parce que lii def ci def xaalis li ngay nii. kii pour mu mel ni il faut nga dem jëli ñax bi te fu mu nekk dafa sore nga boole ci ngooñ nga boole ci ripaas ak employé ay jeunes yi nga boole ci ndox. non non loolu kay dafa baax fii dafa baax fii loolu parce que fii bu euh, ay robine rek dañ ko xëcc rek ndox bi di ñëw fii ñuy roof fii ay robinet mais bu fekkoon dafa am fi forage bu nekk fii léegi fii yëpp àll gannaaw euh, raay bi nii yëpp àll la mën nañ fi sàmme euh, noor bi yëpp. dafa jóg ak boo bëggee dem indi ay compte da ngay def 30 minutes rek jël sa compte ñëw waaw jël repas bi ñëw. ma ma neex na ma man maa ngi commencé di ko def mais euh, àgguma fi ji <laughs> roykaay la Ndiaye moom roykaay la te moom vraiment dafa dugganteeg waa Koungheul mu mu amante ak ñoom jàmm ñëpp la amal jàmm vraiment Ndiaye Sow moom modèle la te dama bëggoon vraiment ñu euh, gars yi ñëw seet ko comme yow ni nga def nii. ñeneen ñi rajo bi ak ñëpp ñëw fii def ci reportage ci moom parce que loolu def ñuy dimbalee ñun sàmm yi. ah bi de jàmm rek laa ci gis ànd bu rafet la ànd man dëkkin bu rafet la dëkkeek nit ñi am ak ñëpp jàmm amul kenn xar ma yàlla toppatoo liggéeyam am jàmm nit ñi nangoo sonn ci ak juróom te du yàqal kenn. loolu laa dëkk ndax moom heure bi muy ñëw dana fekk tool yi noppi nañ te heure bii bu jotee rek léegi tey nga gis mu dem manqué bu fa ñëwatee dafa toog ba tool yi pare mu nekkee woon ak man leneen loo xam ne du jur jàmm ci sama njaboot mhm. du ma nangu mu ne fi doo nangu mu ne fi waaye gisuma lenn ci salaam ak nangoo toppatoo ak juróom juróom nekk ak ñoom mhm. saa buy dem dénk ma leen mhm. lenn loo xam ne am na seen diggante suñ ma waxee ma wax ca loola saafarawu te fekk néew ma ci gis ci moom ci yarum jur néew na ku ma gis koo xam ne lim ci àttan àttan lim ci àttan mhm. bari na ko àttan ndax ni ma gisee muy xonte juróom ni muy toppatoo juróom moo koy wax ne est-ce que li yow boo ko lim ciy fere da nga ci mën a génn ci mën a génn loolu moom ay njëkk a jàq mhm. ndax oto bi heure bu ne mu ngi ay ripaas ay xont façon xontin bu ñu andi di jox ak juróom jur goo ci gis rek xam ne jur gi ki ko yoro da koo toppatoo noonu la fi nekkee xar yeeg nag yi ci lay ne heure bu ne ay surgaam bi loolu la ñuy ci la ñuy mhm. man daal wax dëgg yàlla nekkinam ak liggéeyam mhm. rafetlu naa ko am na jàmm ak ñëpp buñ jàppalee mel na njaay Sow mhm. wala ku ko gis roy ci moom yaakaar naa réew mi dana développé ndax li ma gis mu attan ci jur ñeneen ñeneen suñ melee ne moom wax dëgg yàlla yaakaar naa réew mi moom affaire élevage day jëm kat def kati ñaawte fii xam naa ñoom fépp fu ñu am mooy dugg fi waaye gisaguma leen fi mhm. ndax ñi nga xam ne ñooy ay surgan heure bu ñu ñu ngi fii mhm. ma ngi leen taalal làmp boo xam ne foo toll mu ngi leer mhm. gisaguma kenn koo xam ne ñëwoon fii du a yàq te xam naa suñ ko gisoon nit dëkk bi yëpp dañ jóg jàppale dañ jóg jàppale taxawaayam ak nekkinam bu rafet ci nit ñi. Mm-hmm. mooy tax lu ñu ko seetaan ci leen. mu seetaan ci xale bi gën a tuuti. Mm-hmm. soo ko laajee mu la leen jaay jàmm rek laa xam. jàmm rek nga xam ci moom. ah man de moom wax dëgg fa la moom. Mm-hmm. mën ma kaa wax leneen de bu dul baaxaay ndax moom moom wonul ma jikko bu bon moom wax dëgg fa yàlla. waaw loolu moom xam naa ko. kon daal li ngeen séq ak moom ci liggéey yéen yow yow loo koy defal yow liggéey bi loo koy defal yow. man man moom damay yafal nag yi mhm. waaw yow yaa ko jaral nag yi. waaw bu ñu amee bu ñu soxlaa lekk nga dem jëli ñax bi. waaw mais àll bi gis nañ ne lakk nañ ko fu ba soriwul wala le eh, na sori moom bi. da nga jéggi raay bi waaw. ok léegi lan ngay parce que tim àll bi dañ ko fi war a bàyyi pour jur gi mais dañuy gis ne lakk gi dañ koy lakk di ko ruuj lakk ko carrément wala ay nit ñoo xam ne sax beneen leneen mën a yëkkati tuuf mi ko sànni wala looy wax ci loolu ah loolu moom baaxul jaarul yoon. loo ci wax. loolu moom baaxul xam naa ne buñ ko mënoon a toppatoo moom loolu loolu loolu yëpp deñ. mën mhm. ah mën ngeen séenu. ok ndax loolu moom baaxul. baaxul waaw waaw. te dafa mel ni séeréer day lor nit ñi day lor jur yi. jaayu jur waaw yow lan nga wolof man séeréer la. séeréer rek pël bu nekk nag kon sa jaam la looy wax moom. <laughs> waaw ah, mooy yaay jaamu dañoo am wala tukulóor jaamu kii. waaw tukulóor jaamu séeréer. Eh, jaamu séeréer. waaw ah, wax léegi seen diggante yéen ñaar daal kon Ndiaye daal borom baax la daal liggéey bi daal amul ah, benn moom. waaw laa gis ci moom mhm. jërëjëf kon ñu bàyyi la nga nekk ci liggéey bi. Mm-hmm. ok waa fii daf ma fi teg ma koy surveiller affaire yi. Mm-hmm. may may xool liggéey bi ndax ku nekk yaa ngi def sa liggéey. Mm-hmm. tamit muy muy muy liggéey daal Ndiaye Sow daal muy liggéey waaw jàmbaar la te mënoon na sax tamit état